mbokk Gossas fii duma fi wax waxu bilan ndax premier ministre Mohamed Dionne wax na ko maire bi wax na ko waaye surtout waa Gossas teg ngeen ci seen loxo Gossas nag dama leen di xamal ni seeni doom ñu ngi sama wet ci taxawaay bu rafet bu ànd ak engagement ak fidélité ba tax programme yi nga xam ne moom lay waxal ndawu Gossas ak jigéenu Gossas ak population bu Gossas mooy juróomi at yi ñu dëgmal incha allah lan la ci Gossas war a xaar d'abord nekk un. une capitale départementale digne du nom. Avec l'élection de tous les services yi nga xam ne département dana ko solo donc un tribunal d'instance pour que dootu leen dem fenn wuti këyit mais aussi da un petit building municipal euh, administratif loolu programme la boo xam maa ngi koy waajal chef lieu région yi ak chef lieu département yi loolu tax gendarmerie bi ñu defaraat ko brigade de sapeur pompier wara a indi lépp luy euh, d'abord stade bi xam ngeen ne finalement bi daj na pour ñu def ko un stade avec gazon synthétique des tribunes des projecteurs te loolu aussi dana bokk sur un programme national pour l'élection léegi dinañu pare les capitales régionales war a dugg ci capitale départementale donc am ngeen centre de formation professionnelle gis ngeen ni mu mel DER mooy indi financement ku mu formé ba pare ñu jox la loo ubbee sa liggéey jigéen ni gis nañu également li nga xam ne mooy financement yi yegs kon programme yooyu booleeg ñu des ci commune rurale yi accès universel yi ma wax ci wàllu ndox ak courant ci wàllu yoon yi piste de production ak travaux d'allègement des femmes CMI dañ koy def ba nga xam ne bépp doomu Sénégal ak fu mu mënti doon fu mu mënti dëkk dina am accès boobule muy ndox mi muy courant muy wér-gu-yaram xale yi daañu am aussi un espace numérique ouvert ici à Gossas te xam ngeen ne l'université du Sine Saloum est à portée à quelques parce que antenne Mbadakhoune bi dana am ay campus yu fa nekk ak bu Diourbel donc Gossas dana def dana bokk ci département émergent yi ñuy mën a ràññee ci biir Sénégal te it Gossas naka jekk dañ koy gagné donc fii aw fi xel njaar dafa fekk élection faw nga dem seeti say mbokk seeti say xarit mais bu du woon loolu j'avais pas besoin de venir tey jii à Gossas waaye nag namoon naa leen ni ko Youssou waxee te bëgg naa leen fonk naa leen kon ah ni ma bëggee Sénégal loolu moo fi ne yéen dama leen di bàyyi yéenay xoolal seen bopp seen résultat waaye xam naa premier ministre moom bi yoon dañu indil moins de quatre vingt cinq pour cent dix quatre vingt dix yéen a ko wax de te yéen ñi soreetul de man de xam naa ne bu ma wootee Fatick damay dellu ni ma ko daan defee at bu ne tëdd nelaw sieste ba dix neuf doo ko taal rajo bi ak télé bi commencé dégg bàcc yi. <laughs> danaa ko déglu donc Gosaas danaa xaar quatre-vingt-dix pour cent quatre-vingt-dix pas moins kon waa Fatick yéen a am soxla.